tawa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 mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli dem boobu sallallahu alayhi wa di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñuy jaam yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc di leen ziyaare di leen ndokkeel bu baax a baax ci jamono yu sell yi ñuy dund rawatina weer wi nga xam ne wii moom la ñu tàbbiwaat dugg ci yàlla dolli ñoo defal tawfiix ba ñu fekkee ko yal nañ ko fekk ay déwéni déwéni déwén bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te lépp luñ ci jaamu yàlla rek yàlla fulal ñu ko nungul ñu ko defal ci teraangay àdduna ak alaxira waaye itam lépp luñ ko ci moy rek ci lu ñu def ci ay njuumte lu ñu teg lu ñu tayut lu ñu xam lu ñu xamut lu ñu yëg lu ñu yëgut lu ñu fàtteeg lu ñu fàttewut lu ñu defe lu ñu defegut lépp rek yal nañ ko yàlla jéggal di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon mbokki M-Media Group Nuuru nii ñoo ngi dellu si rek suñ jotaay muy fatwa bi di leen dellu di leen ziar bu baax a baax di gën a soññ suñu bopp rek ak di soññ suñu mbokk yépp rek ñu yàlla dogal ñu seq liggéey bii ñu gën a góorgóorlu gën a bàyyi liggéey bi xel bu baax a baax xam naa sax ñu ngi ci rek waaye dañuy gën a soññiwaat rek xam ne euh, xéwal gu rëy rëy la tawfiix la yàlla defal ñu ko kon luñ ci gën a góorlu rek ci lu koy jëme kanam gën cee def suñu yitte rek maanaam loola doyut kon euh, jéem yàlla danoo baaxe daal ñu doon ay jullit doon ay taalibe yàlla defal ñu ëtt bu mel nii mbooloo mu mel nii ay góor ak jigéen séq ko te lépp doon liggéey boo xam ne bi liggéeyam maam xaadim rasul la daal euh, tawfeex dina yàlla defal nañ ko xam bu baax a baax ba gën koo fonk gën koo jàpp ba lépp lu koy taaral lépp lu koy rafetal lépp lu koy gën a baaxal lépp lu koy gën a yaatal lépp lu koy gën a koweel lépp lu koy gën a e, jëme kanam rek bu dee ay wax la bu dee ay jëf la bu dee ay jumtuwaay la bu dee ay béréb la lu mu mën a doon rek ku mu doon ci nur rek loo ci mën a jàpp rek na nga ca jàpp ci wàllu googa ngir liggéey bii kat wax dëgg yàlla lu am solo loo xam ne lii war nañ cee gën a góorgóorlu bu baax a baax yàlla na ci yàlla doole defal tawfiix bi jay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey xam na fatwa bi muy laaj yi ak tontu yi mel na ni taxu ko sakkan lool ndax euh, defe naa benn laaj rek lañ fi am tey waaye nag mu doon bu am solo ci wàllu liggéey bi ñu jële ko ci soxna si soxna euh, Fatma Ndiaye ñu naan ko cubba ñu ngi koy ziar moom di ko ndokkeel bu baax a baax moom dafay laaj tey ne man lam yuxsin xukmu man lam yuxsin xiraata tashahudi maa annahu axsana xiraata alfatixati wa baad suwari si dafay laaj daal dafa am koo xam ne kii daal dane mokkal na fatixatul kitaab muy alhamdulilahi ba mu jeex ak yenn ti tisaar yoo xam ne yii mën na koy jullee waaye nag ne ne moom daal dafa maanaam mukkalu taaya maanaam taaya la mënut loolu lay laaj kooku lan moo di atteem kon kooku lañ koy wax dañ ko naan fal waajibu alal muslimi al xirsu ala kulli sunnatin sabatat an nabii sallallahu alayhi wa sallam liñ koy jëkk a dénk daal dañ ko naan jullit bi daal li ko war mooy dafa war a am góor góorlu ci lépp loo xam ne lii sunna la soo xam ne si dafa sax leer nañ jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jullit bi daa war a am xërteeg loola mu xam ko waaye tamit wal xazaru min muxaalafatiha waaye tamit dafa war a góorgóorlu ba du wuuteeg lenn sunna te eh, lii muy laaj ni muy taaya dafa nekk sunna bu dëgër boo xam ne bii dafa am solo lool ci ak julli kon dafa war a góor góorlu dal wax dëgg yàlla jéem koo man te it jéem wax dëgg yàlla góor góorgóorlu na ba man faatixatul kitaab man ay saar yoo xam ne yii mën na koy tari kon wax dëgg yàlla bu góor góorgóorlu itam maanaam taaye bii dina ko man ndax mën nañ ne kat euh, jàng faatixa mokkal ko ak yeneeni saar moo gën a jafe fuuf jàng taay bi kon daal liñ koy jëkk a dénk di ko ko laay biir mooy na góor góor lu kemtalaayal kàttaanam nu mu mën a def ba mokkal kaaya bi euh, mu jéem a góorlu mokkal ko ndax kat bu fekkee ni dañu dellu ci àtte bu fekkee ni taaye euh, nit ki da ko bàyyi ci moo ko tey donte sunna la saxit am na euh, ñenn ci boroomi ngir maanaam ñuy jàngale fiqh ne nañu maanaam bàyyi taaye te ko day yàqu julli waaye tamit dañ caa nag am na ñoo xam ne nañ du ko yàq waaye am na ñoo xam ne dañ ne bàyyi ko daal bu fekkee ni da koo tey <laughs> da ko yàqu waaye bu fekkee ne danga ngaa juum bàyyi ko euh, loolu mooy waral nga war koo sujootal loolu ñuy wax sujuuta sujuudu sëy muy sujuutam jama ci kon jéem da ko mënut na góor-góorlu jéem ko jàng comme ni mu mokkalee faatiha ak euh, ni mu mokkalee yeneen i saar yi dañuy wax na it euh, wal mutasaahilu fi sunani qad yatamaada ila tarkil faraidi ne ki nga xam ne kii nag day toppal ak yombal rek day topp lu yombali rek maanaam lu ko jafee maanaam du ko jéem a lijjanti daal di ko yombal bàyyi ko rawatina maanaam nga ne lii daal sunna la di ca yombal na jarut jéem moom sunna rek jarut ma jësoon loolu kenn waru koo def ndax ne ne boo dee wëy rek ci di yombal ne lii sunna di ko bàyyi muy jàll ne ne mën ngaa dem ba loo xam ne lii farata la loola nga waran koo def ak yombal tax nga oyofal ko ba di ko bàyyi tey dane wa bi wa bima annahu xafisa alfatixata wa baada da fa alayhi an yajtahida ala xifsi tashahudi ne na comme ni ma ko waxee fee rek ne na moom wax dëgg yàlla mokkal na fatiha mokkal yeneti saar yi kon li ko war mooy mu góor góorgóorlu farlu ci euh, jàng tashahud euh, ba mokkal ko muy taay bi fala yajuuzu tarku tashahudi amdan gis nga ne ne moom waree su ko bàyyi ci danga ko tay rek ba mu neex la nga coobarewu bàyyi ko wal malikiyatu ixtalafu fi tarki sunnatil mu akkadati amdan dégg nga li ma leen wax léegi ne ne ñi nga xam ne ñi dañoo topp ngiram imam malik di ca jàngale fiqh ñoom ci seen biir sax am nañu wuute ci ne koo xam ne ki da nga bàyyi sunna boo xam ne bii mu akkadal mooy sunna bu dëgër te bii ci la bokk muy taay bii muy wax ne ne ku ko euh, ne ne ku ko bàyyi ci tay ko maanaam dañ caa wuute ñu ne hal yabtu salaata am laa ñu laaj ne ndax ki nga xam ne kii dafa bàyyi ab taaya te moo ko tey ndax mën naa yàq julli ga wala déet ñu daal di ne wal mashhuru adamul butulaani ne nag ñoom ci seen biir bi ñu defee wuute googu ci bàyyi ab taaya ci tay ko ndax dina yàq julli wala du ko yàq ne ne lañ te gën a siiwal daal mooy maanaam du ko yàq kon fal waajibu taallumu tashahudi dañu ne kon daal nit ki daal na góorgóorlu ba taaye jéem dafa nekk sunna boo xam ne bii bu dëgër dëgër la nga jéem koo jàng man ko di ko taaye fa in lam kan ataa bi badalihi ne ne nag su fekkee ne nag def nga sa góorgóorlu nga dem jéem ne def say pexe yi di ko jéem a mokkal wut ñu la koy jàngal nga def say pexe daal def sa kemtalaayal kàttan waaye mënoo fexe nag maanaam ba mokkal ko ne ne ataa bi badal yi ne ne kon na def lii nga xam ne lii mooy wuutu taay maanaam mooy remplacer taay waaye nag bala nga koy indi nag ci ne lii laay taayee léegi da ngay def sa kemtalaayal kàttan yaa gën a xam sa bopp yàlla moom moo la gën a xam sa bopp xam nga sa bopp yàlla moo la gën a xam sa bopp dina ne la di nga xam ne yow mi ko def nga góor góorlu nga ba tàyyi waaye taay bii mënoo koo mokkal su boobaa dañ lay may lii ma bëgg a wax maanaam nga mën koy def su fekkee ni da nga toll ci foo xam ne fi da war a na taaye li nga xam ne moom lañ teg nag ci ki nga xam ne kii moom wax dëgg góor góorlu na góor góorlu ba sonn waaye mënta mokkal taaye dañ ko naan del wax euh, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar yii daal lañ ne eh, bu fekkee ni nit ki moom taay tëna ko ticc mën da fexe ba mokkal ko nag dangay góor-góorlu kon doone rek kon jéem lii mën naa remplacer taay daal naa jël lii dootoo ca góorgóorlu waaye dangay ngay fexe nag mokkal taay ba donte lii danga nga ci jàppandi ngir di ko mën a taaye terewut dañ la naan góor-góorlu dem nga jànge taaya nga mokkal ko ndax dafa nekk sunna bu dëgër boo xam ne bii ci sunna mu akkada yi la bokk kon dañ ne ki mu ki mu tëgg mënu ko mën nay wax subhaanallahi walhamdulillah walla illah illallah wallahu akbar wa in istataa an yaqra'ahu min waraqatin lazimahu dalika gis nga ñi jàngale fiqh dañoo dem ba ci mujj ga ne su fekkee ne yow yàlla dafa dogal nga mën a jàng maanaam boo gisee téere mën nga koo jàng wala luñ bind ci aw kayit mën nga koo jàng ne nañ kon da jël taay bi nga bind ko ci aw këyit soo demee ba tollu ci taaya génne ko di ko jàng comme taaya bi noonu kon daal euh, soxna si laaj bi mu laaj mooy wàllu taaya la ki nga xam ne kii da koo mokkalut kon taaya dafa nekk sunna bu dëgër boo xam ne bi dañoo war a góorgóorlu man ko gis nga ne nag soo defee say góor góorgóorlu ba sonn te mënoo ko am na lu ko mën a wóotu te mooy baat yële mu waxan muy subhaanallahi walhamdulilahi wala ilaha illallah wala akbar wala soo fekkee ku mën a liir nga ku mën a jàng nga bind ko ci aw këyit moom taaya bi sooy julli ba toll ci taaye génne kayit googu tiim ko di ko jàng kon daal laaj boobu daal moom lañ fi aman tey kon yal nañu yàlla doole defal tawfiya bi jaay seena muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ziyaare ñépp nag ñu nu seqal liggéey bi di kontaan bu baax a baax di wane suñu mbégte ak suñu yittewoo liggéey bu baax a baax a baax yal nañ ci doole defal tawfeex bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf ma لك يدعى وهو لك يدعى fataawa su'aalun wa jawaabun yaquumu biha al imaamu abu bikrin fay ndondal koddu ngoy bi awnillaahi wa xosni tawfiixihi kulla yawmi ahadin fii M Media Group